Mohamed report l'idée franchement ñi à les écouter je souffre quoi et je souffre gravement yàlla mi ma tiim xam na loolu comment euh, xam nga quand il nous parle de de de de report Boubacar Camara contrairement aux autres c'est un homme d'État si les gens le disent c'est un homme compétent on n'en parle pas mais gis nga du point de vue politique mhm. il n'a pas de parti et ces gens-là n'ont jamais été sérieux pour mettre en place un parti politique vous pensez que c'est ça dont il s'agit xam nga bu fekkente ni sa bopp rek la ñor mhm. bu dee sa bopp rek la ñor mooy jàpp nga ni réew mi am nga yow rek xam-xam boo xamante ni kenn amu ci réew mi yaa war a jiite réew mi yow kese boo mettre am en place un parti politique doo ko bàyyi mu clore doo ko bàyyi mu dund ni mu war a dundee donc tu ne seras jamais prêt pour aller à une élection quelle que soit l' élection la présidentielle législative ou locale nañ ma wax Boubacar Camara fan ci réew Sénégal la maire nañ ma wax Boubacar Camara fan ci réew mi la am un député nañ ma wax Boubacar Camara fan ci réew mi la am un conseiller pour un parti politique qui qui qui qui est né bien avant même l'APR ce n'est pas sérieux gis nga cette panoplie de partis politiques là qui gravite au niveau du Sénégal nekk plus de deux cent ou trois cent et quelques partis politiques jot na que l'État du Sénégal jël ay responsabilités dem ci loolu pour les faire disparaître parce que gis nga dañu toll ci àdduna boo xamante ni c'est l'ère des grands ensembles boo gisee parti politique yi depuis 2000 jusqu'à présent nit ñi dem di ànd en coalition c'est parce que dañuy d'abord dina économiser les Sénégalais ci benn ci benn aspect ñu am en tout cas euh, des choix objectifs yu ñu mën a def mais boo leen tegalee benn panoplie de candidats ñu leen def leen choix mais tu vois les te ku ci nekk ci ñoom bu la tiimalee programme liiral la ko de façon littérature nga jàpp ni kii moo gën ci réew mi te yàlla ñu ma tiim xam nañ li muy wax noonu am xel la rek bu mu toog di ko bind ku toog réfléchir bind bind un programme donc loolu pour man naxaate la bi ci des il nous parle de de de de de de de l'université de l'université Cheikh Anta Diop mais ñoom ñooy les pyromanes qui ont qui ont brûlé l'université ñoom ñoom oui ñoom les gens de l'opposition y compris Sonko et le Pastef et li may wax je l'assume ñoom la xale yi nangoon biir université di di woy woyu Sonko boobu di chanter di di scander le nom de Ousmane Sonko. maanaam li waral arrêt de cours mais ñoom ñoo doon taal université. donc si aujourd'hui l'université de Cheikh Anta Diop n'est pas fonctionnelle wala les cours n'ont pas encore repris mais l'État a ses raisons ils peuvent pas obliger l'État à ouvrir l'université alors que li war ci sécurité yëpp amu fa ne serait-ce que pour les étudiants pour la sécurité de ces, de ces étudiants université dafa war a ubbi état kan ko jàngal loolu la état def aujourd'hui ci université Cheikh Anta Diop man woon nii ça a vraiment évolué tuuti ñi fa jaar xam nañ ni l'université Cheikh Anta Diop a vraiment évolué à tout point de donc suñu ko ubbiwul ba tey jii c'est par rapport à ça donc il faut qu'ils arrêtent de politiser la jeunesse di leen dugal ci yenn carcan yi wala di leen dugal ci yenn domaine de violence yi nga xam te ne amul amul njëriñ ah, maintenant pour le que mënoon naa ci d'accord ak Boubacar Camara ci benn ci benn angle xam nga une élection bu fekkente ni da ko bàyyi ba ñu ni ñaari weer moo ci def au grand maximum trois mois moo des ñu dem def élection mhm. nga ni nañu demandé ñu def ñu def ñu def ñu def report mais ce report là elle, elle ne peut elle ne peut pas et il ne peut pas être consensuel politiciens yi moomuñu réew mi. parce que là processus doit commencer. oui politiciens yi moomuñu réew mi enjeu yi nekk ci élection présidentielle nekkul ci élection législative enjeu yi nekk ci élection présidentielle nekkul ci élection locale ñun politiciens yi moomuñu réew mi et ces élections là doivent se tenir mm-hmm. te bu ñoom Khalifa Sall jàppee ni ñoom élections yi elles doivent se tenir dañ ko war a gagner ils sont seen seen seen seen. ku jàpp ne c'est la chance. te maintenant mais jàpp naa ni fi réew mi toll. élection yi war na war a mën a tenir parce pour man loolu moom mooy taaru démocratie. élection waxtu woom jot ñu def ko. Mhm. parce que loolu la ñuy waxtaanee ak sénégalais yi. parce que élection bi moomuñu ko.